boy génneel ma reporter waaye man mii xaw ma leen de jaru ko de li ngeen di wax yëpp mi ngi génn de waaye big bourgeois ya ah. bourgeois ya ah. oui xoolal ma lii kii kan la kii ban défenseur la. deuxième mi-temps bi commencé na amaat diggante 2STV yi da koy téye sa loxo. je xam naa li ngay wax de waaye nañ kii ba pare rek. yéen gis Pawlish a noonu moom nee na baal baala sol xalifa Pawlish xoolal équipement Pawlish bi tir cadre sax amagu ko Pawlish 2STV lay football Papis Xarañ Lo 2STV ñu ngi gis Modou mbay ah sama doom Ndeye Ngok borom Sénégal Buzz 221 mu ngi lekk xaalisam nag. non jox ma ma lekk match bi baa ngi noonu TFM daal fi mu ne ñoo mën ñoo yor bal bi ñoo mëne ña ngi paasante am njaay joxal Diop jaa ngi jolli ci terrain bi ah Papis Ngok Papis a ngi topp xoolal xëcaa Modou Mbaye daal équipe bu 2STV bi jaaxal nañ na ay waay ay waay Pawlish bu dee moom rek 2S du gagné de mi ballon toujours pour euh, TFM kii pii la wala ji xam nga leen de <laughs> xamee ma leen dañoo ndiroo trop Modou Mbaye paas na Papis Papis contrôlé na Papis a ngi seet kum paas joxaat na ko waa TFM Papis mii ndeke làmb ji la xam de Mod centre baa attention dóor na ko ah, bi génne na ko. contrôle bi rafet na kii kum doon attention récupération de balle pii paas na ko wala jii rek bu mu ci doon baax na. ballon toujours pour TFM yóbbu na ko ca góol ba delloo na ko waa ngi noonu di xaar bal bi takk numéro 9 bi dégg naa rase na fi penalty nag waaye ba tey ñoom ñoo mëne 2-1 ñu ngi si deuxième mi bi amaat am euh, euh, ah aba ah mooy yéen lii lu mu doon <laughs> lii lu mu doon Big Taf a ngi nii Khalifa Big Taf a ngi ñaata minute de jeu. micro bi li ma bëgg li ma gis laa bëgg a wax li ma gis daaw lu ma gis. <laughs> <laughs> attention. waa xoolal ma lii. ah waa 2S a ngi paasante nag. attention. ah waa mais moo très cher. mais apparemment tu as fait que 5 minutes de jeu ah. non alaaj bu yàq ma der man football naa mi-temps dama gaañu rek ñu mi mais mais Pawlish m'a dit tout à l'heure que gaañu woo mais da ngaa sonn. waaw loolu waxu Pawlish rek alaaj man saa dama football de. waxu Pawlish de toi lan nga gis yow. mais li ma gis mooy aw ma tir cadré. Mhm. aw ma passe décisive aw a dara centre yu taxaw passe décisive sa biir bi ci mën la jógee. a ah El ah, Hadj Gora yow tamit bàyyi ci lan moo la ban façon blessure nga am. xam nga Balla Lac de Guiers. waaw ah. mos naa boo ne dafa jékki-jékki leen tef. waaw man dama déglu nag karaj sama cheville bi karaj. Aba nee na. Ah. yéen plateau ba. ak beneen plateau ba rek ngeen xam. mooy suñ mag. mais moom mais mais ba tey ma ngi ci terrain bi mais yow génn nga. non mais damaa gaañ ci cheville bu fekkoon ci ay addicteurs ñu comprendre. ah gis ngeen pii la kii pii la moo am yaram ji moo ndaw. kon de mooy eh, lay def fii. waaw dara dama kii si ah, bi ay na de. Ah, da ngay def offre de stage ak. aba ngi noonu amatuma lu may reporté ndax Big Taf blessé ñëw fii di ma bari. mais doon nii waa ji yaa ngi nii ji sat bi mooy lu tuut li attention aba ah aba aba de aba ah, aba aba moom nag euh, euh, ndeysaan xam gaaw mer ah Modou Mbaye paas na borom Bantamba xoolal Pawlish lay Pawlish Pawlish mi di mooy def différence quel centre attention numéro 10 bi mooy kan seen numéro 10 bi mooy kan bi aay na gol bi génne na bal bi attention beneen centre waa 6 mètres loolu moom 6 mètres la Papis xarañ loo moo ko génne <laughs>

Eh waay Samba eh waay Pawlish passe na bal bi coup franc pour 2STV deuxième mi-temps bi Khalifa. pour rythme de Modou Mbaye Modou Mbaye moo jël coup bi moom euh, doomu Bécaye Mbaye ji borom 2S borom Bantamba moo jël coup bi nee na daa bëgg a égaliser l'équipe am wax na ma ko sànq nee na ma di yaa ngi fi maa ngi fi maay dugal xëcaa laa gisagul ci terrain ba mu duggee ba tey mu ngi ne la jàpp ndigg li xëcaa ngi ne di jàpp ndigg attention ah Modou Mbaye Modou Mbaye lii du làmb baaxul de Pawlish góol bi ma ngay seet Pawlish paas na ko Pawlish waaye day attention Pawlish <laughs> Pawlish mi ma gis contrôlé na Pawlish Modou Mbaye ah Pawlish Pawlish talanal na Modou Mbaye ah baaxul ba tey waa 2STV ñu ngi góorgóorlu waaye ba tey euh, dara sotteegul lii ma gis Big Taf joor la waaye daa sa génn nee na Pawlish nee na dafa sonn lii loolu de laa dégg waaw waaw yàlla nañ doon bu mag yàlla nañ doon bu mag yàlla doon bu mag ñu góor góorgóorlu daal ñu ngi koy yëg de barke ah yàlla baax na mois deux millions cinq cent yi nga encaissé war fii dama ruube lay def nga nag. ah yow mi ngi dox normal léegi. sama waa ji xàmmeetu ma ko de ba ay mbiram commencé neex ba tey daal saay attention contre attaque contre attaque ji pii wala ji six <laughs> kon xam nga loolu. kon xam nga loolu big taf ñun ak yow terrain mbay mbayaan nga ca Pikine. ñu ne ñun ba Ndar. Ndar ja Biram Yacine raté na occasion bi nga xamante ni nag moo waroon a nekk réalisation bi waaye gone gi mën na football de Khalifa. ah mën na football de. ah Aba Ngok Aba contrôlé na. Aba contrôlé na. Aba xool na ko paas jox na ko waa ji man dama leen a nag. récupération récupération eh eh xëcaa def na paas tey ma ngi soog di laal bal de xëcaa ngi soog di laal bal depuis deuxième mi-temps bi ba ngi soog di laal bal abaa ngi laaj bal bi de abaa ah, abaa daal fi mu ne nii moom dafa mel ni mami da koo dominer jamono ji ballon récupéré par la TFM 6 mètres. TFM ah ñoom ñoo mën ne kay. man de xësaak loxo yi mu teg ci ndiggam li ആ ആ Pawlish waay. ok li muy def ci terrain bi moom. daa bëgg jël place Modou de présentement nous sommes en d'observer la deuxième mi-temps ballon contrôlé par Kheucha une passe pour euh, euh Pawlish Pawlish Pawlish talonnaat Pawlish de xanaa talonnaat rek la jàng ci football moom day taw na rek. <laughs> ma kan la nag. <laughs> yee lii doon waaw lii la nii kii soxor de te eh, damay fàttale bañ leen mënee. ak si nii lay mel. ah damay fàttale bañ leen mënee ba ma dugalee but ba. nga mer di ma gaañ yàgg naa laa defaral nag fis cey TFM Pawlish récupéré na mais da koy yàqaat paas na tey jàmbaar la góol bi góol baa ngi xool kum paas paas bi rafet na génne na bal bi normalement belle sortie de balle attention une attention eh eh, eh eh lii la doon <laughs> raté plus penalty noonu lañ ko mën a tuddee raté plus penalty. mais li kii raté bal pare nga am raté ko ba pare. ay jëloon jàpp jaay jaay. dégg nga la Fabis. ah pardon de maa Modou Mbaye jël na bal bi de. ah Modou Mbaye. moom nag mun ko wala. xam naa affaire yi mun ko wala moom sax muy commission moom. dama ko topp waaw. waaye naa ragal bal bi. commission Pape wóor moom sax muy commission. waaw daa doon wóor. daa woon tal bii la. Très bien Amar

wona mo sonso wuygo dañuy tëgg man moom laa lay wax ni maa ngi def déggoo dañuy tëgg benn kañ loolu di saral nii ni ana ni lu ma wax yow dañuy tëgg benn da ka ala la dama dugal de naa ko dugal ci yàlla 15 minutes rek bëri na man 15 minutes sax bëri na am looy wax ni mu do xalaat am yàlla xam na ni mën nga loo mais nag ay maa mën a dugal ah kii défense bi ñu dugalee. non défense duguma de man doo tax défensé. non point bi moom maa comme condition fooy taxawee fooy tax. aywa Ziz mais Ziz mais Ziz Ziz. dafa téye moom teel nii rek mais xool bàyyi rek bu yàgg xëcc xëcc ko mu génn. ñu daaw waaw Désiré Seck teg bal bi. Désiré Seck yeewu waaw. wax may sama sama booy ndey football kat day. non man fi ma équipe andi ñoo xam ne amul condition ay wër.